Soñi.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 lépp luy ambiance nag tegal suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaar yi ñuy suivre seen site internet seen lamb TV jibi tey dañoo doxantu jël si Baye Mandiaye yaakaar naa ne bi mu bëree ak bébé Bismi ba tey mbokk internet yi kenn gisu ko xamuñu dafa làqatoon xamuñu si lan la nekkoon dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet yi ñu dugg si waxtaan maa lay siyaare Ndiaye. mu daanta maa ngi lay fay auzu bi na seytaani rajiim ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di sant sama yaay di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram di ñaanal sama papa fi mu tëdd yàlla suuf si kawam ak mbooloo mu jullit di yaayu Malick fi tëdd ah yaayu am tan xulay faat ngeenal yaay Papa sama di yaay Boubacar di ñaar àdduna lépp ñëpp jàmm daal di bëggee muxaasinam na toog nii di bëggee Malick ji bi bale am bu gunaas xam nga di caar sama mag Abdou Mbaye maa ngi koy nuyu baax sonn na ci ab du Salaam suñu maire ah. maa ngi koy siyaar di ko nuy nuyu baax nuy waa guy gi yëpp jett mbaar darkase gunaas ceddo bàyyi ma kenn waa zone 3 bi yëpp waa Baxdaat laay kafe ga maa ngi koy siyaar wér a wér macha allah am na solo nga jël combat sa digganteeg Bébé Bismi coow li bëri ñu ne Bébé Bismi wërta na jël combat bi détails yi bëri ci yaakaar naa ne combat bi la neuf bi ñu génn la woon nga am ndam si kawam bi nga jëlee combat bi préparation yi nan la demee woon da nga yokk tamit mu duggoon géeja waaye xaw leen a sonal trop daan fa les junior daan fa Cheikh Super Jamono daan fa Papa Boy Djiné yaakaar naa bu ma juum tamit daan fa njaase daan na fa quatre quatre personnes. waaw ah, préparation moom métti woon na trop trop billaay dama see na ba feebar ay ñaari yoon ba jour làmb ji ba nii may wax ak feebar. billaay parce que préparation moo métti parce que ji dama ko bëggoon yee du nag li mu duggoon géej moo tax ma bëgg ko sama carrière man làmb parce que làmb bu ma am noonu la dama koy bëgg parce que li topp sama ginnaaw parce que dama bëgg làmb man damaa bëgg a yegg au sommet bëgg a yegg ci kaw lu gars bëgg ñu loolu lañ bëgg moo tax suñu bëree benn combat bu jàllee fàtte ko. yee lu nekk suñu kanam moom la ñuy xool gën a yokkaat entraînement yi gën a lëluwaat parce amuñu lu dul làmb loolu rek la. ok combat bi tamit bokkoon ci combat yi nga xamante bi nii day relancer sa carrière nga gagné ko parce que dañ ne victoire noo ko amee baax na mais ni mu déroulé ba nga gagné ko par avertissement est-ce que est-ce que tamit amul lu muy empêché ci fi nga jëm. non non parce que tey man ku ku ku seetaan ay combat Baye Mandiaye da ñëpp dama leen a daan ñëpp maa ngi doog ko taxaw. waaw ah, yow xale bu ndaw di la dàq ji ngay daw rek di daw di daw sa waay làmb la sa sa doom sax xanaa boo koy dóor bu dayee nga nga dàq ko am na nu muy defee nga mbas sax yow daanu moo tax te gis na ñi muy def mbër yi yenn mbër yi nii te man yàlla dimbali na ma xale laa de waaye ay mag ñoo may yeb ku ci mel ni ñoom Côte Suroor xam nga sama mag Abdou Mbaye ñëpp bàyyiwuñ ma moo tax bu ma juum du yomb daf ma bëggoon juum loo rek ma bañ loolu waa ne combat bi daf cee daf cee indiwaale plaisir bu ko neexoon mën na yàqu ko. waaw loolu yàgg nañ koo dégg ci mbër loolu moom dawul yaramu mbër yi quoi ñàq nga damaa feebaroon ba daan nekkuma woon loolu nañ koo dégg ci mbër ah man mii feebaroon ñëw bëre si nag hmm? loolu laaj ko amateur bis mi ñaata ñaata combat am la bëre daw génn loolu kay jikkoom la bi dañoo dalante rek mu xam ne sa waay fii du neex ñu dañoo xeex nag damaa xeex ak moom de waaw dama xeex ak moom après nag moo xam ne tey du baax mu gérer ko xam naan te la moom. waaw man kay leen laa dem ragal rek moo ñu dóoroon ko dara mu yàq làmb ji comme ñoom Papa Sow seen yooyu ñuy def dama dem ah commencé woon nañoo indi ay xeex ci géew bi ñoom seen waa yëri ñoo mel noonu bu nga xamee ne du baax ñu jéem ko yàq man maa ñëw di joteeg sama booy sax na leen bu leen yàq sama làmb billaahi parce que ñoom dañuy tooñ quoi parce que loolu la bëggoon li dal Papa Sow dal ko ba mu dem ñibbi te waxoon naa ko ci open période na ko fexeel nga ñëw bëri si bul bul bul bul jël xeer doo ko sa bopp wala sa bar fexeel rek nga ñëw. lan nga xamoon ba ne ko fexeel bëri si. li laa santiro moo mooy biir géew dina def ay tàppaleem rek dama ko xamoon loolu parce man xam naa ni góor laa quoi sama morom góor doon du ma noq dañuy xeer rek man loolu man leer na ma nañ fi laa juddoo kat damaa xeex ba tool nii xam naa yoonu xeex quoi yoonu xeex dama ko xam dama ko maîtriser merci du ma du ma ngaax. macha allah am na solo combat bi jeex na nga am victoire ci kawam instant yi Baye Mandiaye fan la jëm. ah di wax grand frère ñu may ma saas du ma génn parcelle la instant maa ngi ci Modou Lo wala Zos. moom duñ sa morom nag doom de. a ah, ngi Modou Lo moom bu ñu bëree. xam na jàpp na jàpp na sa tête de file lu écrit bi ñoom ñaar am na fu jaar ñaari yoon. loolu dara. loolu dara man xale laa rek nekk ci yoon ñaan yàlla bu rek moom ah waaw dama dugg parcelle ay ñaata yoon kaata ah. waaw ak kan. ak euh, bismi. waaw. ah. Saara Irkil doom parcelle ak ak bé ak bé ak agogo. muy ñaata. cinq personnes waaw. mais mais agogo Grand Médine la dëkk bébé bis mi la. parcelle la rek parcelle waaw Modou Lo Franc ku muy àndal waaw ñu Gora Sock ku muy àndal waaw kon jeex na Modou Lo ku muy àndal ñoom Gora Sock kon kay baax na combat Papa Sow moo indi Papa Sow ñoom ak Bébé Bismi waaw kon kay jeex na waaw moo tax may la nag ñëw wala Papa wala Zos ñoom ci suuf wàccal ñoom laa soxla Modou Lo Papa Zos Zos moom dama koo ñaan moom léegi mu bàyyi dañ dimbali seen rakk yi ndax ñu am teraanga ci làmb ñu leen di laaj nii du question dépasse du dara dañoo bëgg am teraanga ñoom yu ñu am ñun yooyu lañ bëgg am moo tax ñu leen di laaj di sonn nii. mais yalwaanu xale. non mais bu fekkee ñoom dañuy bëre tey duñ dimbali seen rakk tamit nit sa métier ci ngay jàppalee say rakk xam nga bëre ba bàyyi noonu te jàppale woo say rakk ñu yéeg am ni li nga am tamit dafa métti man buñ ma fay dara. commencé ci nañ fay jos rek man buñ ma fay. parce tamit. bàcc sëñ ma fay. moom na ñëw ma daan ko rek donc man loolu garaw loolu méttiwul ni ma daan waajee laay waajee dara te damay waaj incha allah ci kàttanu yàlla moom na ñëw ma daan ko rek kasa laaj soxla non wóor la Zoss dama laa ñaan ngir jëmmi sëñ Fallou nga may ma chance forcé wu ma la ko dépassé wu ma la. non forcé wu ma ko dépassé wu ma ko ba muy laaj ay isaapu ak yooyu noonu ay xawma kan. tamit waaw yooyu dafa bëggoon a yëg quoi ñun fa lañ toll nii dañ koy ñaan saas balaa moo bàyyi làmb mais loolu amul ko saas bu bàyyi nii te say rakk toll fu ñuy toll te moom gis nañu làmb méttee. man de man de wàcce naa la ba ci daam seen bu dee daam dina ko. man ñooñu xaw ma leen jos laa wax. daam seen kay dajil beneen pàcc. waaw ah, koo dama xaw ma ko jos nañu may saas ñu bëri moom loolu laa wax. waa Dakar caatu ngéwél lu fa xew. di ñaanal caatu ngéwél ndam yàgg booy Dakar nag lool loo ci wax. Ah, loolu daal mënoo guma see wax parce que daa nekk ci contrat daa am combat. léegi booy bi dëkk Pikine nag ki daanoon Ada Fass Onde. pare na Onde c'est que nag Onde luy jabam moom moom day wax rek te du bëre loolu léegi mooy problème am. Onde kat Onde bëgg naa bëre de yi ñoo ko ñemewul. Onde léegi léegi ba pare na loolu mooy problème am Onde day taamu taamu taamu moom borom yoon la mais li muy taamu moo bëri te. Ah. leen koy fay moo arrangé âge bi du ko fi xaar daal man loolu la am ci lu may wax âge bi du ko fi xaar ay nekk fii tey CNG suba kee su ginnaaw suba kii loolu dëgg la baax na nga gis lu bon wax ko baax na mais tamit mu ñëw bëri quoi am na sens man moom bu paree man pare na waaw. Buldozer Thiatou Yarakh ñoom tamit yaakaar naa ne. ñooñu mënu ko maa wax si ñoom dañoo nekk si contrat waaw ku nekkul si combat moom dinaa wax ci yow mu naan naa la wax benn affaire de ku jëflante wut ak xam de. demal nga nga boo wéeteeg bébé si mbaa ba mu tëdd néegam ngeen wéet yow moom yàlla seet nga la ko booy bi lu muy saf moom dina la wax bu fekkee nit u dëgg la quoi dina la wax la laay saf. waaw xanaa daa am loo àndal am benn mbër bu ma waxoon naan tollul ni ñoom waaye moom ñoomay daje. waaw ah, looloo nekk ci man lu ko raw fuuf affaire bi doon la quoi mën la. moo lu garaaw laa lay wax làmb du gudd rëy du gàtt du dara don la suñu borom moo koy def ci yow deret la. ba tey bàyyeeguñu xel lool de. tamit nekkul handicapé si làmb ji nga yaakaar. man léegi dama yàq sama yan morom yu ma sut daa bëri sama yan morom ñoo ma sut samay morom laa wax man may xale bu ndaw samay morom ak ni gisoo kii damaa sut kii nii la toll samay ñii ñooy samay morom màggagu ma de entraînement moo ma def nii sama morom ñii nii toog ah moom laa wax nii. samay combat man ak kii damaa toll nii man ak Saara nii laa toll damaa tolloon nii tey gis nga ni ma toll waaw séntu ma ëllëg feneen loolu la rek damaa nekk xale am jom man dama am jom de xama góoleen ko ci man nag mais billaahi dama am jom du ma bàyyi chaque jour ma wax loolu Bébé Bismi li mu foogoon moo amul mbër la nag champion la borom baax la mais lu mu foogoon amul ay damaa nekk écurie bu mag ñii ñoo may entraîné rek ñee ñoom moom open press am sax ay coach am nee nañ ko am nga combat bu danger. mais yow tamit nan la am nga combat bu man lan leneen lañ may day naxe laay dégg ci combat bi day mel ni ku la ragal da lay nax kase te loolu sax bàyyi ma ko woon xel su ma ko bàyyi woon xel bu dawee du ma ko dàq ji mais gis nga ay dama koy dàq ji mu daw ma dàq ko nii ba mu génn. am na benn exemple bëri nañ ba ma wan ko ginnaaw sax di dox di dugg ci biir géew bi na ko kaay di dox wan ko ginnaaw mais fu mu taxaw la taxaw parce que bañ njëkkee dalante rek xam na lu may saf quoi xam na ko billaahi. bi nga ñibbee après combat bi déggante nga ak papa lan la la papa. waaw sama grand ma koy nuyu di ko siyaar waay billaahi sama mag sama gaan borom géejawaay mais déggante wuñu nag waaw. daan Koña ak Clémence. waaw yooyu yëpp ay làmb la yooyu ay làmb la yooyu yëpp ñu ngi ma wax ay làmb la waaw heure bu ko yàlla tuddee mu war a moom ci kàttanu yàlla dina sotti dama bàyyi ma kenn mais Zoss daal laa bëgg may ma saas. yow lan nga gis ci Zoss nag bàyyi ma ñaan. Zoss dama laa ñaan gaan wala boog borom Zoss soosaat américain bi <laughs> may ma saas waaye grand frère sama papa ji jàpp ci waay. am na solo lan ngay tàggoo. waaw Mourane di la nuyu gaan di ñaanal jàmm di ñaan si bii nii dem doon ay télé tele yow moom gaanu mbër yëpp nga doo gaanu Baye Mandiaye de ñëpp mbër yëpp bàyyi woo kenn li nga mel ci man mii noonu nga mel ci mbër yëpp amoo fenn sens ñu koy waxee interdit ah voilà moo tax ñu tuddee ko Modou Anta sans frontière voilà loolu wax ji daa ñëw sax non billaay ku baax la daa ci sëñ Touba Ahmed suy waxtaan ak yow day mel ni yow rek la am si gaan nit ku ñàkk ki ñaan la malay lay li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla nga dem ba sa télé wax ma la ay site télé waa sa télé boobu waa di wax nag mbër yi nañ ñëw ñu bëri nañ ñëw ñu bëri waaw Zos suma grand suma kilifa ñëwal ñu bëri di sant tamit ñu jàppoon ci combat bi ñëpp. Eh, waaw ah, mais xanaa di ànd ak ay booyu gëm seen boobu rek moo tax muy wax ji wax wax ji. ndax ñun moom mooy loolu bañ nekkee xale ba léegi ñooy ànd gëm sa boobu si loolu noonu lañ waaw lañ nekk di ànd bañ nekkee xale ba léegi amul benn mag boo xamante ni nii jàpp na si loolu laa doon tooñee léegi gars yi suñu premier combat balaa ñu kaa bëree dañoo daj lu ne billaahi amul promoteur bu ñu seedewul dem ñàkk fayda lépp pour bëgg rek mu nekk champion ndax xam nañ li nekk ci moom ay capacité moo tax daal day ñaan yàlla rek waaw yàlla defal ko jàmm ndax mooy loolu espoiru géejawaay la waa dëgg dëgg yàlla ko yàlla lafal cat rek ñun de jooyee ñu billaahi tur bu ñu am lépp lu ñuy dund ci làmb moom mii moo tax show ñu ci làmb mais moom mii nii moo ñu dugal moo ñu intégré moo tax ba ku ñu xam ci réew mi rek moom mii la macha allah. waaw lu mu sinabul baaxul mi ngi nii gisoo. <laughs> lu mu sinabul baaxul. billaay moo daan da di nuyu Sénégal rek képp kuy bëggee Baye Mandiaye di nuyu Fallou Ndiaye mi tëggoon làmb ji sama ménagère waaw di nuyu jëri góone yëpp maaloofe sàmp ku lu métti cinquante faale ko mën naa ma tër billaahi balaa dégg fukki balak ñaar na tuy di nuyu géwal yëpp sama côté yaay soose yi ma leen di nuyu di nuyu sama papa ma jambay allah ma leen di suyaar bu baax a baax sama papa yooyu doo géwal yi ma di nuyu ma kura tamit gis naa taxawaay bi yaa ngi dégg sama mag Abdou Mbaye yàlla na ko yàlla may gudd fan Mbira Mbaye sama mag Cheikh Ba Anta Thiam Mama Diop Bas ma leen di siyaar sama yaay jëlang daabo daabo daabo jëlang maa ngi lay bégee nice baa ma aw buru këram na doog ni maa ngi nuyu <laughs> noonu ñu leen di jaajëfal macha allah di leen jox di daje ba beneen yoon ci beneen émission ak ci yeneen daanaan jërëjëf Baye Mandiaye